jataayu tey bii nii dañoo kon niñ ko waxee ni ñu nekkee ci 8 mars bi te ñëpp xam ne 8 mars bisu jigéen ñi la ñun nag ak ni ñu tënkoowee ak yoonu murit le 8 mars bi daje woon nag su bis bu mag boo xamante bis bu mag a mag ci yoonu murit muy bisu daaru te kon mars bi yëpp weeru jigéen yi la ñun ñu jël tey en tant que yaay en tant que bàjjen en tant que soxna en tant que jigéen ñëw doon defal feet fii nii si hôpital bi ñun jigéen ñëpp nag ñoo ko ànd jagleel ko xale yi nga xamante ni dañoo feebar nekk fii ci biir hôpital bi ñu jox leen ay ndimbal yoo xamante ni dañ koy mën di jariñoo en même temps ñun suñu ay doom yi nga xamante ni suñu njabootu bopp la ñu neexal leen jox leen ci ay kado chaque année ñun dañ koy taxawal waaye nekkul activité bi nga xamante ni moom dong la euh, amicale bi di taxawal ndax amicale bi activité yi muy taxawal ñëpp xam nañ euh, activité yu bari la mais kon ni mu tënkoo ci weer bii rek moo tax ñu yemale ko tey jii nii jagleel ko jigéen yi nga xamante ni ñoo ngi liggéey ci hôpital bi jagleel ko suñu njaboot yi nga xamante ni dañoo tëdd feebar kon niñ la ko waxee ak ñun suñuy doomi ay bopp mais bu loolu weesoo activité yu baree bari bari amical bi mi koy taxawal fii si biir hôpital bi kon niñ koy waxee chaque année ndax de fu ñu foo gis góor gis fa jigéen te buñ dañuy tubaab li muy faral di wax derrière chaque grand homme y a une grande dame ñuy ñaan à chaque fois administration bi kon ni ko donte sax loolu xam naa du bokk ak suñu kii lu war a mën a nekk la Euh, administration bu jëlee benn góor jël benn jigéen jigéen ñi bu ñu xëyee suba teel bala ñoo ñibbi seen kër yi day day yàgg duñu am benn vie de famille kon bëggoon nañ ak bi nga xamante ni moom la jigéen war lool fii si hôpital bi donte ñoom ñi ngi si sax ñu gën koo yokk gën ñu koo dooleel gën a dooleel jigéen fii si biir hôpital bi. waaw tey dañuy dayoo daje fii ngir euh, am euh, feet bu ñu def boo xam ne bii bi ci jiitu mooy feetu jigéen ñi ndax dañoo nekk ci weeru mars. te weer woowu ci àdduna bi yëpp ñu koy sargalal jigéen ñi ñu koy feete di sargal jigéen ñi nga xam ne ci àdduna bi surtout ñi nga xam dañuy waaye itam ñuy def at mu jot ñuy daje ci liggéeykat yi am benn ngoon goo xam ne dañuy daje jox ay cadeau xale yi euh, liggéeykat yi ne ci biir hôpital jox tam ay cadeau xale yi nga xam dañuy entrer ci service pédiatrie lu yooyu lañ boole tey def ko mu nekk activité boo xam ne bi dañ koy def ndaxte barki démb lañ ko bëggoon def waaye dafa daje woon ak màggalu daaru musi bi ak màggalu daaru xafoor looloo tax ba ñu koon def ñu ne tey nañ daje jëm ko def ñu ci euh, euh, profité nag di sargal jigéen ñi nga xam ne ñu ngi liggéey ci biir hôpital bi di leen jaajëfal ci seen coono yiy daj pour euh, boole liggéey bi ñuy liggéey ak boole aussi yor seen kër ndaxte ñoom li liggéey ci hôpital bi xam nañu lu am solo la te liggéey boo xam te liggéey bu takku la boo xam ne bu ñu rafetlu la te donc jaadu na léeg-léeg bu ñu amee occasion yu mel ni ñu mën leen a jaajëfal ci loolu vraiment won leen ni li ñuy def yëg nañ ko. te itam ñu ngi leen ci masawu coono te di ñaan sama borom gën leen dëgëral ba ñu gën ko mën euh, ñeneen ci des tam mooy ñu bokkul ak euh, jigéen ñoom mooy yeneen euh, personnel bi ñoom itam liggéey bu am solo moom la ñuy def ndaxte hôpital bu ñu ko xoolee ci at yi saa yu demee ba xayma xayma bi ci at mu ne dañuy gis ni li ñuy liggéey de gën a yokk kon nag ñiy faj si fii ñi gën a wóolu hôpital bi di gën a ñëw te loolu mooy tax ba añ na liggéey bi toll fu mu toll nii kon nag ñooñu itam wax yàlla ñoom ñëpp kenn ku ci nekk mu ngi leen di ñu ngi lay sant di la gërëm di la ñaanal sama borom loolu la kàttan ba yéene bi ñu am ci hôpital bi ñu mën ko motali ci suñu sago te itam dañu am mbégte di recevoir tey docteur Ousmane Gueye nga xam ne tey dafa bokk ci ñi ñu dara daal ñi ñu dara jaale bis bi mu jógee ba wërësoo gi euh, ñëw ak délégation te mu nekk loo xam ne lu ñu rafetlu ndax moom suñu borom daa dogaloon mu doon liggéey fii ci hôpital bi nekk ci chirurgien te liggéey fi lu ëpp fukki at te boobaak léegi itam dara ñaaw ci mu nekk taxawaay bu rafet mu amoon fii ba moo tax ba ba mu demee tam wuru show gi fàtte wuñ ko ñu woo ko tey ni ko na ñëw ñu dara jàll ko bis pour vraiment won ko ni euh, ñoom moom bokk liggéey bi te itam duñ ko fàtte ci li nga xam ne moom la defal Hôpital Matlaboul ma waaw bâtiment bi euh, li taxoon xañ na liggéey bi xaw a yéex tuuti mooy buñ ko tàmbalee ba mu am benn at euh, feebaru corona dañu dab te du ñuy dabee itam Touba tuumaraañ ko woon fu ñu mën a fajee xeetu malade yooyu ñu mujj jël ko daal di koy soppar ñi def ko centre de traitement corona loolu moo taxoon ba deux mille vingt ak deux mille un daanaka liggéey bi arrêté woon ginnaaw bu euh, feebar boobu delloo ginnaaw nag léegi liggéey bi tàmbaliwaat na te ñi nga xam ne ñoo ko ŋànk nekk Dakar ñi def seen kéemtalaay kattan ngir ko fii ñaari weer xañ na liggéey mën a yegg dañu mën a jot ci batiment yooyu gën mën a yokk lal yi nga xam ne mën moo itam service pédiatrie yi nga xam ne moom itam hôpital bi moo dajale ci njaqam bu mën a fexe ba yokkee loolu su ko defee xale yi nga xam ne ay tout ñu mën a gën a ñëwal seen wér-gu-yaram ak seen paj waaw dialyse bi itam am na ay jéego ñu ci def ndaxte am na centre bu bees boo xam ne bi depuis at ñu ngi fonctionné fii ci biir hôpital bi te benn tool bi moo ko jaayante tabax ko ci alalam euh, ministère la santé jàpp ñu ci équipement yi ak yi nga xam ne mooy lii koy doxal machine yi ba nga xam ne léegi euh, jóge nañ ci fukki machine ak ñaar dem ba ci ñaar fukki machine yoo xam ne bi ñu ngi dox ci dialyse te bi am na fanweeri machine ak ñaar te ngi seet fii weer mois d' avril bi ñu yokk ay infirmier ba mën a doxal fanweeri machine yëpp ak ñaar su ko defee lim bi nga xam ne ñooy soxla woo jalis ci euh, fii ci Touba seen lim euh, ñu mën a gën a euh, tontu ci laaj boobu nga xam ne ñu soxla ku leen faj ci wàllu jalis su hôpital Cheikhoul Khadim tam ubbee centre am xaj na ñoom tam day tax ba nit ñi nga xam ne dañu nekk Touba soxla ku leen defal jalis xaj na nañ mën a am ay bërëb yoo xam ne nañ ci mën a dem te duñu fay dara te duñu dem tam Dakar donc loolu tam day nekk ak cant goo xam ne bii dañuy yàkkamti loolu mën a